voilà jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy topp am nañu mbégte ànd ak yéen euh, tey ji nag ñu fas yéene ànd ak yéen ci waxtaan bu am solo boo xam ne lépp rek euh, dafa jëm ci histoire boo xam ne soxna si ñu toogal moom moo ko dund nekk histoire boo xam ne itam ñu bëri mën nañ cee euh, jàngatee lu bëri laataa ñuy dugg ci waxtaan bi dëgg-dëgg dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu ànd ak moom ci laaj ak tontu yi soxna Oumy ñu ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoo ñu lay topp soxna Oumy. di la jéggalu di la bal ak di la baal ak yaa ngi àndal ñëpp rafetlu émission bi kon mm-hmm. nag lépp lu doon rek maa ngi gërëm yàlla bu baax di ko sant ndax lu doon la rek suñu borom moo ko waral mm-hmm. doomu aadama pour nu ngoo nattab suñu borom yàlla da koy teggi ndax jàppoon naa duma dem ba ak si fii wax dëgg yàlla mm-hmm. ak ngi ñaanal sama ñaari waajur lu gën a bari di leen sant ndax su ma demee ba nekk fii di wax tey ginnaaw yàlla ñoo ma mhm. dina def nañ ko ci man maa ngi leen di ñaanal seen taxawaay yàgg lool sama njaboot gañ ma yoral nit yàlla na leen yàlla taawal boppam dund ba fekkee seen njariñ ci barke yonente bi voilà soxna mi xam naa dinañ ci dikk wax naa ko histoire boo xam ne xëy na euh, dund nga ko euh, muy ay euh, xat-xat ak ay jafe-jafe ndax mën nga ci dellu saat lan la exact waaw exactement affaire bi daal ni ma dikkee dama amoon gone yàlla ki dara tawut ma jële ko ci ma ànd ak feebaru xel 2004 la woon ba léegi moom la ma daanee ma amee sama taaw sama premier sol moom xam naa fu ma ne mais deuxième bi xaw ma fan laa toll ma topp ma ànd ak moom ànd ak moom ànd ak moom ba am ñaareel bi mu daane laat ma ba ñëw fii tey kër gi ma ne tey sama yaay fi la nekkoon ak man sama yaay jooju muy bàyyi ma sax faal maa ngi koy sant bu baax am na yàlla wéral cëram cër yàggal ko fi lool barke sëñ Fallou voilà kon bu ñu la déggee bi nga amee euh, doom ci nga amee feebaru xel waaw léegi muy dem ci man di dem ci man ba yàlla mu ki topp si sama taaw ma dem ba yàlla dem ma ñëw fii ñu jële ma fi yóbbu ma dëkk ba ma def yaramu neen su meeku dem di tàbbal xale bi si teen bi sama wujj yaay ni ma daal di koy nangu dem wax sama yaay buñ buñ may bàyyati si kër gi daal léegi ñu daan may indi fii di ma faj di ma faj ba yàlla def ñu gis fi tan delloo ma dëkk ba mais bi ma demaatee nag ba am sama sixième doom bi ci la maam di dikkalaam muy maam jaara gi voilà voilà ñu def nank ñu def tuuti nank ci waxtaan bi euh, da nga am doom nga muy maam jaara gi tekk jamono jooju euh, feebaru xel bi dikkal na la nga demoon ba nar ko sànni ci teen bi foofu kooku la du maam jaar waaw moo topp sama taaw ba tey feebar bi noonu rek moo jàpp bàyyeegu ma nan la demee woon ba nga nar ko bi sonn rek di dund lu kenn xamul munoo lekk munoo naan tàngoor wi ñëw si man guddeeg bëccëg lu ma si dara sama borom kër dem fu ne yàlla ginaar gi sam na ko billaay wallaay toujours maa rek maa ngi bëgg a dee mhm. man mën a def tàngooru yaram mhm. duma lekk duma naan tëdd ni bant rek mhm. fi ñu ma tëral bu ñëwee fa lañ may fekkaat amul fi guddeeg bëccëg fii laa daan fanaan si garab gi billaay bu may jóge fii di dem ku nekk wax na ba soon man leen yóbbu leen ma sama yaay bi ñu ma yóbbul sama yaay sama yaay moom mooy rek samay doom moom bu dëkkee bootaay bu ma saana dem Mbàkke dañ koy laaj ndax yaa jur xale bi sama doom ko jur daa ànd ak feebar mais loolu daal ba na ngeen ni bàyyiwu moo ma jëlee sama néeg indi ma Touba gi may liggéey ménage di wàcc di ñëw fii sama kër léegi nag sama borom kër maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm na yàlla tax guddal taxawaayam te yàggal léegi nag xale bi ma yor noonu muy maam jaara gi ba nii may waxee yow amul lu ma xam si moom mi ngi sama yaay bi ko jëlee ba yóbbu ko sa àll ba yàlla dogal na doomu aadama yi nga xamante yàlla suñu borom comme ni doo dee doo dee ndek mënoon na dee wala xaji def ko neneen mm-hmm. waaye yàlla dogalu ko mm-hmm. léegi nag ci la ma yàlla baaxe mm-hmm. ñu indi ko si kër gi laajte doomu kan la ñu ne ñoom ñoo ko ñoo ko far duñ ko naree sànni wallaay wal asim muy maam Diarra Guèye sama mos. ba nëgg ni si de bu ma demee dëkk ba màggal bu ma demee. daa ba sonn ndax xamul maay kan. ah donc kon yéen bi ngeen gisante euh, muy sa doom dem ngeen ba gisante te moom xamul ne sax euh, yaay yaay. billaay wal asim téléphone rek la ñuy gisante la ñuy waxante man ak moom. sama yaay nag moom maa ngi koy sant di ko gërëm. Mhm, te loolu lépp feebaru xel bi moom moo la ko yóbbee. feebar bi kay moom ma koy bés nekkul ma sama néeg fii laay tëdd yàlla seede na ko. Mhm. su ma financé wàcc ñëw toog. Mhm. waa ngi ñaan nag yàlla suñu borom bi ma ko teg yàlla na ko teg te bañ koo teg kenn. barke voilà feebar bi ci ban dëkk la la dalee woon. Sine lay kan. Hmm? Sine lay kan. ah Sine fan la nekkee. Hmm, Boori Ngaay. Boori Ngaay diggante Ngaay ak Baba Garage. Hmm. léegi bi mu la dalee ndax demoon nga ci xëy na euh, kër docteur wala maaman yi lan lañ la wax. man moom fu ma dem bari na. kër docteur moo xamante ne dem bu ñu ma piqûre piqûre bi du dugg day day day ma dem ñu yóbbu ma hôpital tonton Ngom dina ma seetaan dina ko dégg. bi mu seetee mu ni kii yóbbu leen ko ci garabu olof yi ñu yóbbu ma sama garabu olof di ma faj am benn docteur bu tudd Baaji dëkk Réfan réew maaw bi ma demee mu seet ma daal wax sama papa kii feebaram dinaa ko faj ma ne ko dee ci boole bi soobu yàlla ndax doomu aadama mënul dara man ko lu ma jaaxa sama feebar bi fu ma dem ñu bindal may garab ordonnance bu du jeex te duma jariñ dara su ma wannee doom yi fii lay takk sama yëpp dama kaa defi doom du mën a dem kaas wi duma ko naan hmm? seede yàlla billaahi wallaahi sama borom kër lu ne jaay na ko ndax man hmm? dara amatu ko hmm. ma koy ñaanal nag saa borom bi ma teg li yàlla na ko teggi te yàlla may sa borom kër euh, bi nga feebaree moom am na taxawaay bu am solo ndax mën nga cee dellusiwaat dëgg-dëgg waaw li ñu ko jaraloon ak billaahi wallaahi lu mu jaayul amul jaay na fasam jaay na mbaamam jaay na xaram jaay na ay sareetam jaay na dem na ba jaay ay tooli gerte mi mu def ba pare ndax man du toujours ñu ngi koy conseil pour mu wuti jigéen ba neen mun leen tànk muy dund xanaa ma faj mu wér wala suñu borom def lu ko soob ndax ba muy man man ak yàlla dogal na ba ma nekkee lañ ma ko joxoon may ànd moom waaye rafetal na diggante bi yàlla na ko yàlla fay. boobu ba léegi moom léegi sànq lu la wuy téléphone. Mm. ci moom dama wuy ba pare nga agsi mm-hmm. ma koy ñaanal na fan wu gudd. ànd ak wér. li muy sonn ci man njaboot gi ñu séq yal na ci yàlla teg loxo bañ fekkee njariñam. Euh, feebar bi nga feebaree ñi nga xam ne euh, ñoom nga nekkaloon ñu xamoon la nga jékki-jékki am wér di xel ñoom nan lañ la jàppee woon. wax dëgg yàlla nuñ ma jàppee woon yërëm nañ ma lool wax dëgg yàlla ku dee rek ñu ber la mboolem ku dëkk siin lekkan wala tundoo ko fa dëkk yal na yàlla def ci yow jàmm ak tawféex ci barke bi amul kenn ko ma fa ma sa wax dara ci sama feebar bi ma conseil bu mu may doog dal moom daan dañ dañ daan wax naan kii dafa réew dafa jonge ndax man moom damaa yëngu wax dëgg yàlla sama borom ko sax dama daan wax naa ma yow nga maanaam booy dee da ngay xëy dee ndax sax jonge moo la doole sama wujj pecc ko ne ko kii yàlla seede na lii muy def daw ko def su ma duggee ba pare damay ñëw teg dugg bi si robinet bi dem di ko wëri jiwaat affaire bi nu ne feeñoo na ma ko su ma di génnee fóot di fóot mel ni dañ ma ne boo ko laalee dee su ma nekkee ak samay gone min dañ ma naan demal demal may dem di daw lu ne ma def ko. kon feebar la doon xiir ngay dem di bàyyi say mbokk di topp àll waaw waaye nag mosuma def lu bon moom. Hmm. su ma demee tamit daal lenn mooy problème bu ñu ma doo dem moom damay defanteek ak ñoom. Hmm. waaye kenn mënu la ma woon dara moom wax dëgg yàlla ku ma ci masaana siqal moom. Hmm. yow daan waaye suñ borom jox na ma kàttan goo xamante ni ku ma ko jot siqal. yaa may woon ginnaaw. waaw ndax jàppoon na sa yenn ci say cër wala. wax dëgg yàlla moom jàppoon na lu bëri samay cër. dem na ba billaay wallaay sama borom kër du toog fii ma toog fii. Hmm? samay du ma gis aw nit boog maanaam. Hmm. doomu aadama yi duma leen gis. Hmm. waaye nag lépp lu doon lu ne. am na fu ko sun boroom jaarale. man fu nekk jaar naa fa. daar musi fa laa jaar. waaw may dem daaru dama daan jóg di dem maam na kon dëkk bu ñuy wax daaru kon. li ma daan tax a dem moom moo téye sama tànk kër ba si bindee laa commencé la fañ moom dematuma toog. maam Thierno waaw mm-hmm. doomi sëñ Madoun kan si daaru kan mm-hmm. waajuru sëñ Mor Warka kan mm-hmm. waaw sëriñ fu ma aw guddi topp na ma su ma jógee yee ko ni ko maa ngi dem mu jóg du nelawati léegi nag ma bàyyi ko ndax du ma nelaw guddi ma bàyyi ko bu ma bu nelawee rek ma jég ko dem mu di ma wër mu nelaw ba ba yeewu rek daa dem ni papa ji ummi dem na ñu di ma wëri loolu yëpp dund naa ko ba ma jógee ma dem sama yaay ak sama papa ñoom it ñu rawati dund naa ko yàlla ki day tënk Moustapha ñu ma yàlla booleel mu dëkk dëkk bu ñuy wax ndukkoon sant naa ko lool moom it ndax ginnaaw yàlla bu yàlla jàllee jàmbaar la ci man foofu daal waaw mm-hmm. xam naa ne moom sëñ Lam sëñ na bu ma bind sama tànk yi doxatuma. Mhm. nga xam ne ni nga daan jékki-jékki di dem di bàyyi sa njaboot loolu moom. Euh, toog naa kay mënut demuma waaye mënuma dara mhm. suñ làmp kan mhm. tàngoor bi daan ñëw ci man bu ndox mi taw sax day mel dañ koo baxal ak climat bi upp mel ni dañ koo baxal suñ làmp moo ko dindi moom suñ làmpam suñ mudu kan bàyyi faal siin lay kan maa ngi koy sant di ko gërëm am na yàgg lool ci xalifa bi ci barke suñ faal mais mosoo am euh, xel ñaar ci koo xam ne xëy na jote ngeen wala koo xam ne jàpp nañ ne xëy na loxo ma ngi ci wala lépp rek da nga koo jëloon delloo lépp si mbirum suñu borom la man moom duma ko duma man duma ñaxeel sama bàmmeel si àdduna mm-hmm. lu ma dal yàlla suñu borom moo ko dogal ci man waaye du mbindeef doomu aadama ndax man mënu lu ma doomu aadama dara ba doomu aadama di ma mën a mm-hmm. lu mu doon la dama ko bàyyi ak suñu borom rek mm-hmm. wéeru fa yàlla yaakaar yàlla ak yeneenti bi ak sama ñaari waajur ak sama ñaanab sëriñ ndax sama sëriñ sant naa ko lool ndax lépp loo xamante ni jigéen góor nga koy defal jabaram mi ngi ma koy defal ba muy mën ak ba mu mënul mm-hmm. fi mu nekk nii ma lay wax nii barki démb la fi jóge yàlla seede na ko mënoon na maa jóg woon la garab gi ma indi mm-hmm. saa fu mu dégg maaman mm-hmm. dem na ca uti na lu lu lu may faj dem naa ba ne ko bu ma wutalee dara maa ngi sant yàlla mu ne ma bala ma am lu ma gën a nga dellu fa nga nekkoon te wax na dëgg ndax man mii Tuubaa gi dëkkuma fi samay gone ñëpp ak sama yaay ñii sama sama rak sama rakk ci ma bokkal ndey baay doom ji mu yor yàlla seede na ko jàpp naa génn àdduna taw ma wax sax jëm ci ba nekkee sama feebar la ko papaam may sama rakk man damaa jàpp ne daa génn àdduna duma ko limaale sax man ne sama turne di wër di wër di ba dem benn dëkk bu ñuy wax guy doog sama dëkk bàjjen moom fa demee mu ñëw fa ak magale ànd ak tantam ji ko yor ci laa ko gisee mu xamal mu xamal ni yaayam kii dafa nuru ak sama tànt ndax ñoom tànt lañ may mu woo ma ni ma ma bi ma ko gisee rek man du ma jooy. rango ñi jeex na motuma dara. yàlla nag moo xam. yàlla rek xam yal na yàlla saafara lépp daal. ñaata ñaata bant nga am ñaata bant nga am. naa ñeenti jigéen ak ñaari góor. ak ñaari góor fi mu toll nii ki nga xam ne moom nga bëggoon sànni ci teen bi kooku ñaata at lam fi mu toll nii. kooku war naa am fukki at ak lan. kooku daal moo topp sama taw te sama taw 2004 la amoon. 2004 mhm, waaw muy Alaaji Guèye mhm. waaw. léegi moom bi bi nga ko njëkkee gis moom lan la la wax xale boobu moom ba tey ci waxuma dara ndax moom jamono yooyu sax duñ nangu ma wax yooyu. Mhm. mais xam na ne yow yaay yaayam. waaw xam na ko ndax moom mu ngi mu ngi ci sama sama yaay. Mhm. waaw mhm. xale bi bu mujj am te muy maam jaaro gi moom it xam na fi mu ne maay yaayam bu may woo damay yokkaal naan sama yaay ñëwal ak yooyu. ma ne ko waa dinaa ñëw moom mooy ñaanal. chaque jour rek mu naan na nga dund ba dellu si sama papa. voilà donc ki ñu mujjoon gisanteel xale bu jigéen boobu sa doom la euh, mooy mooy mooy soxna jaaro noo. Fatou mooy Fatou moom mooy jàng alxuraan. Ah, mooy jàng alxuraan nekk ci daaree Fambaye Niang mm-hmm. ma di ko sant di ko gërëm ndax Fambaye jàppale na ma lool yàlla tax yal na ko yàlla fay te mbooti alxuraan wàcc ci kawam ci barki Seexul Xaddiim. voilà xam naa léegi te ñu jeexal jotaay bi euh, fi mu toll nii nag lan moo lay metti jamono yi instant bi moom li may yëg sama yaram mooy bët yi moo am problème su ma nekkee si naaju duma gis mm-hmm. waaw ak problème bi maanaam maanaam man daal fu ma nekk nii li sama problème mu àdduna daal mooy sama njaboot gi daal fi mu ne ak sama borom kër ku muy dimbali rek dimbali ma te yàlla tax ndax jaboot naa te yàlla dogal na moom lim amoon jeex na ci man. te doom ju yi ndaw laa am ki topp sama taaw. ak ki maanaam ki topp si ki maam jaaree gi te maam jaaree gi nekk caat waaw. soxla nga ndimbal daal. waaw soxla naa ndimbal moom wax dëgg yàlla. sama rakk ji tamit maa ngi koy ñaan ndax moom jabaram moo yor samay doom. mosul am doom moom. moo moo moo topp ci man. jabaram mosul am doom moo yor sama doom yëpp ñu koy wax Madou Diop waaw. voilà donc lan ngay wax euh, ñi nga xam ne ay borom baax lañ te di la seetaan pour ñu jàppale la message bi nga leen di lancé. maa ngi leen di sant leen gërëm. Mhm. ngeen ñaanal taxawaay bi yàgg. ci barki Sëñ Fallou di ñaan liggéey bi ñuy def yàlla yokk man-man yi. ak ak yi ba mu gën a baawaan ci barke Rasulullah te ku may mën a jàppale te yàlla tax mm-hmm. nga def ko mm-hmm. waaw mm-hmm. maa ngi man daal maa ngi ñaan rek ñaanal ñëpp waaw di sàkku ndimbal sama bopp daal waaw boo waxee euh, ci ci ci lan ngay yëngu liggéey bi man damay ménage di wàcc ñu may fay ma gisee fóot ma fóot ko waaw ah, loolu ngay yëngu waaw ci loolu laay yëngu di ñaanal sama nijaay ji nag di sama waajur ndax moo fi sama wasila mooy sama lépp baay Baye Moussa yàlla na ko yàlla fay mm-hmm. ak Maguette mii ma nekk si néegam mm-hmm. ñoo bokk si ñaari baay bokku ndey baay daa dem daara mu si lu ma dara nag mm-hmm. di sant waa kër gi ñëpp di leen gërëm di leen sant yéen sant Fambaye bu baax ko ñaanal. Mhm. Moustapha Niang na mu bëggoon naa. Mhm. jotaay bi mu fekk ko. Moustapha waaw. Mhm. moom mooy ki may faj. moo dëkk moo dëkk Ndukkuwan. xarit <laughs> yow xam nga ko baax sa ji borom baax. sa ji li may tàggatoo maanaam tàggatoo bi sama borom kër moom moom laay tëje yàlla na ko yàlla fay. ndax jigéen boo nekkee moom bañaloo ko dara bu feebaree feebar nga. ba keroog fu mu mën a dem ak bàyyam ba ne barsàq yal na ko yàlla yërëm te yeexinu daf ma daan wax naa sa bunt bi nga tëj yal na ko tijjee ci jàmm ndax lebal nga ma ko sama sama li nga ma lebal yal na ko sa njaboot gi fay barki sañ Fall maa ngi koy sant bu baax lu doy waa ci moom xëy na fi nga toll ci moom ba nga ne moom sax euh, bu ma sañoon billaay wallaahi bu ma du ma du ma dee du dee baay ma si àdduna su ma sañoon bu ma dee mu jëm ma si bàmmeel ndax taxawaay bi ma taxaw rafet na lool te mësumaa gis ko ko def. Mhm. billaay wallaay lu gën a metti si jigéen mhm. su ko dalee moom mooy taxaw mhm. mel ni jigéen di ma ko lijjanti di ma conseil di ma wan nu may def billaay wallaay ku ko xaar yàlla na xàddi muudu baaxum gi maa ngi koy ñaanal di ko gërëm di ñaan yàlla suñu borom lépp luy musiba nar a ñëw ci moom yàlla ko yàlla fil bu mu dem si kenn yàlla yàlla yokk fanam wi lool may ko soxna ñaareel boo xamante ni. ah ba na am ak yow ni mu ni ma mel nii. Mhm. yàlla na ko yàlla may. da ko yéene soxna ci barke yonent bi. bareen soxna mhm. su ko déggal mhm. ndax dafa am yërmande. xam nga ku am yërmande doo ko sidde dara. mu du baax ni ma ko yéene yàlla naa kopp maximum néegum nday yàlla na ko yàlla fay. macha allah jërëjëf. waaw jërëjëf euh, mu nekkoon soxna Oumy Fall tey moom la ñu euh, dalaloon ànd ak moom ci waxtaan bi mu nekk waxtaan bu am solo boo xam ne histoire la boo xam ne moom moo ko dundal boppam gis nañu njabootam donc tey ñu fekkoon ko fii ngir waxtaan ak moom nekk histoire boo xam ne itam ku nekk war nga cee mën a jàngatee lu baree baree bari diggante euh, soxna yi ak euh, ñi nga xam ne rek moo di euh, góor yàlla yi xëy na ku ci nekk ni nga ko taxawoo dégg li mu wax ci borom këram ak taxawaay bu am solo bi nga xam ne jàppale na ko rawatina koo xam ne demoon nga ba tàqalikook sa xel yàlla dimbalee ko mu koy jàppale euh, ba tey euh, mu euh, fu ñu ko gis rek mën koo xool mu nekk lu am solo bu baax a baax a baax donc moom itam ñu ngi koy sant baax di ko gërëm di ko di ko ñaanal sunu borom li mu bëgg moo xam yàlla defal ko ko ci disponibilité bi nga xam ne am na ko ba recevoir ñu tey fii ci këram ngir àggeek ñun waxtaan bi waaye tam li nga xam ne moo nekkoon ci xolam mu bëggoon koo génne ànd ko ak ñun ñu ngi leen ciy sant baax di leen gërëm sant soxna maam Fatou Kébé mi ñu gungee ci jotaay bi ak Modou Diouf mi nekkoon ci caméra bi Cheikh Gueye mi nekk ci montage bi ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm xam naa numéro yi dinañ ko affiché ci suuf bu soobee euh, nga xam ne bëgg nañ ko jàppale parce que tamit vraiment euh, soxna su baax la soo xam ne itam soxla na ndimbal dégg ko li nga xam ne noonu la nettalee histoire bi numéro yi mooy suuf ba nga ne képp koo xam ne rek bëgg ko jàppale boo ko wooyee ci numéro bi incha allah di nga ko jot ko defee ngeen ngeen ngeen jëflante incha allah rabbi ci fànn googu ñu ngi leen sant baax di leen gërëm di leen jox daje incha allah beneen jotaay beneen gan incha allah rabbi jërë ngeen jëf